sëriñ euh, fu mu toll nii nag euh, tête de liste ni euh, ngi euh, daw fu nek Amadou Ba Macky Sall ak ki nga xam ne modi Ousmane Sonko mais tout d'abord Ousmane Sonko ak Macky Sall Sénégal yi regarde tuddee exactement deuxième round parce que élection yi mooy deuxième tour alors ban analyse ngay def mutuellement entre Pastef à la tête d'Ousmane Sonko mais aussi APR boobu ba di ki nga xam Macky Sall. ah mais ragal na day gëna graw Hmm. defet bu gëna graw la gis. Serigne. non man je vous dis vrai hein. je vous dis vrai man li commencé di décliné wu sama kanam li gis La réalité politique bima jox pas mën juumi nak mais gisaguma lu mëna freiner gum Pastef gisaguma ko. amagul lu décliné lu ni majorité. Euh, euh, Pastef à l'Assemblée nationale gisaguma loolu mm. dama ko gisagut parce que ñii di wax opposition ñëpp mais mesurel ku si nekk dooleem buñ dajalee seen doole nan lay toll ci élection lañ génnul élection lañ génn mag yi dafa amoon candidat candidat am nekk ci nguur Sonko am candidat am tànn ko mm. ñu dem ak seen ay moyens bopp dem campagne gagné ci autoroute ak extraordinaire hmm? te élection yooyu ak léegi ba ñu génnee yàggul ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu élection yi élection yooyu ak yii ba sorante wuñ cinq mois la espace de cinq mois la est-ce que tey mën nga wax ni ñett bataloon démb Bassirou Diomaye Faye ñoom ñëpp découragé nañ weddi nañ leen xam nga lu tax ma ni la mën na gën a garaaw mën hmm. na gën a garaaw fuuf parce que gis nga que xam nga ni Bassirou Diomaye Faye ci cinquante quatre pour cent yi mënoon na ko dépasser mënoon na am lu ko ëpp xam nga si ban condition bu fekkoon ni Sonko moo nekk président de la république moom moo doon moom moo nekkoon candidat ñoom daañu am taux bu ëpp lii parce que dafa am ñoom ay sympathisants lañ ñoom Sonko lañ bëgg te yàlla tax ñoom biñ ne Sonko bokkul ñoom ñoo découragé seen bopp toog voté wuñ maintenant nag Sonko ci élection tête de liste ña voté woon ñëpp te bëggoon ko voteel dogul mu candidat mais mais mais mais Serigne Ousmane Sonko exactement ak mois est-ce que euh, impact. parce que ku nek ak la nga topé peut-être son après la candidature bi ko ndaw ni bu efficace concrètement est-ce que tamit à travers six mois peut-être nous am répercussions si xam rebondissement rebondissement. mën hmm. na am amaana ñoo xamante ni gisuñu seen bopp mun nañ téye seen téye seen loxo mais gisuma lu lu opposition fi fi nekk mais gisuma ñoom légitimité parce que ñoom ñoo fi jógee yàggul situation bi ñuy dund yëpp ñooma ñoo ko créé immigration clandestine bi ñoo ko gën a may ampleur donte créé wuñ ko mais dañ ci seetaan lu bëree bëri inégalité sociale bi chômage bi endettement bi lépp mi ngi fi. Hmm. te ñoom ñoo ko créé teg ko fi. te sénégalais yooyu leen fi juree woon mais même sénégalais yi ñooy dem di voté ji jiluwaat mais est ce que sénégalais yooyu leen voté woon dañuy dem ne leen kaay leen yéen ñi ñu teg coono bi yëpp kaay la ñu joxaat leen sénégalais yi dépassé nañ foofu fàllu dañ waxante dëgg rek mais sénégalais yi dépassé nañ foofu am na sénégale yoo xamante ni te seen carte bañ a voté mais moo leen gënal dem di votel régime boo xam c'est un régime sortant bu leen teg ji fi jafe ñu nekkee yëpp nañ waxante dëgg nag fàtte moo xajul fii foofu laa ñàkk na ñàkkoon na d'accord ak àndu Bougane ak ñële àndu Pape Djibril ak ñële ànd àndu ab Anta Babacar Ngom ak ñële parce que man dama jàpp ni bloc boobu trois yooyu ñoom mënoon nañ def seen bloc bopp demal seen bopp. bokkuñu vision. non seulement bokkuñu vision mais ñee dañu nekk ay nit yu sénégalais yi caricature ba pare parce que dañoo jot a jaar ci nguur réglé wuñ benn problème mu sénégalais yi yéen nag ngeen am chance mosu leen laaj ci nguur dama ne gis nga nga dem élection. un député garde sa légitimité sa objectivité sa constance fall mo gën nga dugg si lo sa légitimité day daanu. alors Macky Sall xalaat na mu ñëwaat campagne concrètement xalaatu mo de. Hum. ah Macky bu Macky bu ko japp Macky fall ah. ñëwaat. ah Macky waxuma la ñëwaat de mais dama ne hum. mbaa bu duñ ko japp Je calculer si ah Macky en tout cas xaw de mais mom mi ngi Macky Macky Macky hein mais lu ñu koy est-ce que am ay preuves concrètes en tant qu'on ancien président boo xam tam joxé na nguur gi à travers des euh, des élections euh, am na immunité pour koy protéger Serigne. ah mais est-ce que duñ ko téy ci réew mi ba ay responsabilités ñu situé ko tamit parce que tamit dé gi fi amone ray gi fi hein il y a des meurtres quand même yu fi hmm. amone ay persécutions lu né am ci si réew mi fàllu yooyu tamit dafa dafa dafa la la responsabilité du président Macky Sall. parce que am na ay anciens présidents yoo xam ne lañ leen di toppee tey mooy ay crime contre l'humanité te loolu am na fi crime contre l'humanité am na fi dafa am ay ay ay critères diis na luy diis na mais dafa am ay critères dafa am ay critères te meurtre ci la bokk yooyu boo ko defee ay meurtre loolu crime contre l'humanité la rëyul de hmm. waaw dafa di lu am moo tax ñu wax la loolu alors euh, bien itam muy ki nga xam que modi Amadou Ba peut-être ak cette intercoalition warlu ak li nga xam que modi APR. Mhm. moral mom xaw a retiré exactement parce que néna défaite bu mu amoon la mënul faté waye itam na nga xamni ni itam noonu la ko waa APR daal di taxaw woon concrètement ah, Amadou Ba mom bu amee fulla warul and ak ñom Amadou Ba. Hmm. bu amee fulla deug te nouvelle responsabilité la wax. nouvelle responsabilité warul and ak ñom il doit prendre ses responsabilités non warul ko warul warul ànd ak ñom warul ànd ak ñoom. Hmm. nañu waxante dëgg Amadou Ba warul ànd ak ñoom loolu du logique sax ñu la fi xas wax la lu ne xeex la damm say tànk gor say tànk mais nag sa waay politique nag warul jaral loolu incohérence yooyu politique waruloo ko jaral quand même c'est ça alors euh, mais Serigne aussi euh, par rapport ak euh, Mirou, li na xam que moo justement ba tey si élection yi ak tolluwaay bi ñu gis ni ginnaaw une am nouvelle responsabilité wallu me rejoindre li nga xamné que modi APR mais am ño xam ne itam retirer retiré wu si li nga xamné ne que moo di ñom euh duru Wade dañ leen dakk si bobu dañ leen xam que modi di est-ce que tamit lool gisoo si wala comme sa observation mu am. benn impact si poids politique bu li nga xam ne que moo parce que PDS ñoom Doudou Wade ñoom ñëpp bokkoon na si ñi nga xam ni itam gën nañ si gën a gën a gën lool quoi li nga xam ne que moo di euh, le parlementaire. mais ñoo ñooy PDS di. PDS boo ci génnee ñooñu ko ci des. ñoom Tassirou Thioye ak ñoom Doudou Wade. mais boo leen ci génnee lu fa des loolu hmm. Karim moo leen yëpp. Karim moo yëpp waa PDS. Karim PDS lu ñu dugg Karim moo leen si dugal. Karim wad motax ñu bëré bëri baye PDS cadre yu bëri te défendre nañ ko fi out bi yor bi wad yi luñ lu Karim wad amut te c'est des gens cohérents ñu nga cité légui Doudou Wade ku ko xam-xam ko ci cohérence ak hmm. objectivité hmm. mais du top xalé bu tuuti du ko dugal ay affaire quand même ci lo xamanteni mom aussi dafa am crédibilité bu muy hmm. sam ëllëg du ko jaral politique du ko jaral Doudou Wade fo waxe ñepp ne la machallah mais Karim di leen dugal fii di leen génne fii fu mu neex roof leen fu mu neex len ruppi leen mel dictateur Karim bo xam ñemewul tek tankam Sénégal. ah da nga ko fee aaye woon nak jaay waaw mais mais mais dama ne waaw sa waay dama ne la exil bi ken xamul nu mu démé waron nañ ko xamal mom euh, lañ ci waxtaan les tenants et les aboutissants mais nañ ko wax il a été exilé mais comment. comment il a été exilé Beaucoup de surprises élections. Ouais, mais, mais, mais, Parce que moi, deuxième tour. Hmm? non mais du deuxième tour de ban deuxième tour. deuxième tour élec élection ya déedéet lii élection législative la. yee leer na nañ premier tour la woon bu ñu ko jaxasee de. ak du deuxième tour léeg-léeg 54 la. lan 4 pour cent moo tax seen diggante. pour cent waaw mais dama ne tour. Fallou waaw ba tey du deuxième tour yee weesu na 54 pour cent la leen gars yi wee fii bu njaawale tam. <laughs> mais y dox tour a hein? victoire deuxième tour non même pas mais élection la hmm. waaw nañ une élection deuxième tour deuxième tour on préfet premier tour la élection présidentielle présidentielle du législatif. alors merci beaucoup Serigne ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw bàyyi nga daal tàggatoo. téléspectateurs yi peut-être benn précision boo xam ni itam dañ koy def ce matin waxtaan neen si mbiru ki nga xam ne moo di Diéguy Diop mais on s'est trompé et que ñu koy jéeglu bu baax a baax si fee yi nga xam ni itam doon nañ ko toppee donc là euh, ça remonte depuis juin exactement il y a de cela trois mois donc on s'en excuse euh, à madame Diéguy Diop alors merci beaucoup Serigne ñu lay jaajëfal bu baax a baax nga daal tàggatoo justement téléspectateurs yi. merci beaucoup Fallou. Hmm. merci on se donne rendez-vous hmm. inshallah. jeudi. jeudi incha allah incha allah rabbi alors jërëjëf merci beaucoup Serigne ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ça a été un plaisir euh, di am ak moom si nga xam que moo le point de l'actu yéen itam merci beaucoup de l'avoir suivi mais également l'ensemble justement de nos équipes qui nous ont accompagnés euh, di leen jaajëfal bu baax a baax bi saa su nekk ak suñu programme nos programmes se poursuivent exactement euh, sur sénégal 5 point com mais aussi sur toutes nos plateformes digitales je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous et à tous à demain inchallah pour le tour matinal rendez-vous à partir de 10h30 bonsoir le centre de formation africain du Sénégal.